d'enseignement qui ont passé euh, le concours du de du du du CRM mais ba tey le CRM 2022 euh, nee nañu concours boobu concours boobu euh, amaguñu résultats yi ba tey ñu ngi taxaw di xaar ñoom xamuñu lan la ñu war a def ay góor ay jigéen et puis ay ndaw des gens qui ont moins de trente ans ci rêvent de servir leur pays à travers l'éducation Euh, pour camper le débat, il y a une d'entre elles qui a vraiment campé le débat et qui a rappelé l'importance de l'éducation. Euh, de me lui proposer euh, le message qu'elle m'a qu'elle m'a qu'elle m'a envoyé euh, mu nar a nekk suñu base de de discussion vous êtes prêts? oui maa ngi alors Modou tu me proposes ay ndaw lañ yoo xam ne dañoo defoon concours crème. depuis octobre passé dañ ne ko ren session bi deux mille vingt trois moo waroon am mais deux mille vingt deux sax lañ ko tuddee parce que deux mille vingt trois bi sax amagul léegi nag ñu nekkoon surtout maa nag sama genre yi nga xam ne dañoo âgé ndax concours yi boo xasee ba am trente ans dootoo ko mën a defati te ñu bëri sama genre yi la seen dernière chance pour ñu mën ci admis léegi nag concours bi ñu ngi ko defoon depuis octobre novembre passé <laughs> trois phases la woon bu dee français bi dicté la man arabe lay def bu dee arabe bi violation nga def mooy chaque groupe léegi bu ñu paree dañuy sélectionné cours yi sélectionné bu ñu sélectionné pare te première phase bi ku nekk sa région nga defee léegi bu paree deuxième phase bi mooy admissibilité dañuy dem Dakar def fa culture générale dissertation après ñu sélectionné waat bu ñu sélectionné waatee ñu toogaat ñu xaaraa résultat yi peut-être résultat yooyu ah, xaar nañ ko de cinq mois muy doog a léegi bi pare ñu daa defaat euh, kii entretien entretien bi ñu ko defoon le octobre depuis lors nag génnagul ñu ngi xaar résultat yi boobu ba tey te concours bi tënk nañu ndax am na ñu xam ne am na yeneen projet yoo xam ne bëgg nañ ci dugg mais ragal nañ suñ ci duggee résultat yi génn ñu bokk ca ñiy jël te bu boobaa dañuy pénaliser am ñoo xam te bëgg nañ voyager mais ragal nañ tey ji buñ fun buñ voyager woon concours bi ñu génn ñu am moo tax ndax man am naa ci sama benn bokk boo xam ne tey jii nii deuxième tour bi at mi woon na ko mais fekk na ko jël na gaal gi ba dem billaahi léegi nag ñu doon ñaan nag boo invité ministre boo ñu ko mënee laaj ak quelques question que lan lan la ñuy xaar ci libéré ñun ndaw yi nga xam ne danoo bëgg ëllëg servir sunu sunu réew ci wàllum éducation mooy njàngale te ku ku wax xam ne njàngale moo yor réew te bu njàng mi baaxul peut-être réew mi dara du baax. ñu leen doon ñaan nag ñun politique gu ñu defuñu daree politique li ñu soxla mooy liggéey defal suñu réew ndax mënoon nañoo def leneen ñu suñu moroom ñuy taxawaal mais ñu doon opté woo pour jàngale kon moo tax ñu sarax ñu ngir yàlla génne ñu. alors c'est un message qui m'interpelle beaucoup c'est une jeune dame euh, xaw ma ko mais j'ai mu ngi yor doomam elle en attente des résultats d'un concours bu essentiel pour son avenir. elle a moins de 30 ans, elle a choisi de rester au pays, de servir le pays, au lieu de choisir la voie de, de, de l'immigration, au lieu de choisir d'autres voies. Euh, Est-ce que ce message vous interpelle, monsieur le ministre euh, waaw jërëjëf maa ngi déglu naa euh, euh, sunu candidat boobu nga xam ne li mu wax Euh, wax na ay préoccupations wax na tamit benn concours crème bu ñu organisé bu nga xam ne ba léegi génneeguñu résultat yi euh, loolu mun naa ko dëggal résultat yi ñu defoon octobre deux mille vingt deux après euh, remaniement am man mu fekk ne commencé woon nañu procédure bi procédure bi mu ngi continuer boobu ba léegi fi ñu toll nii nii nii nii mun naa wax ne man. ma dugal nañu résultat yi sama bureau pour ma signer ko maa ngi ci procédure bi man ak sama cabinet rapproché pour vérifier xool la procédure du amuñu benn implication lu dul vous vérifier ndax procédure bi ngeen na ko te jàpp naa ni suba parce que tey euh, dossier bi ma mujj liggéey maag sama directeur de cabinet ci boobu la pour que suba bu ma amee ok samay conseiller technique ma signé ko te defe naa amul préoccupation bu bari dinaa ko signé mais balaa ma ko signé dama leen wax nañ ma indil le directeur des examens et concours ma convoqué ko ñu wax ci ma xool man tamit ma déglu ko bu baax ñu signé résultat yi bu ñu paree nag ñooñu ñu dem commencé dem def seen formation ci région ci région yi. mais loolu kañ la. la publication des résultats définitifs kañ lay euh, intervenir. may mun a kañ tontu naa ci loolu nee naa suba ma signé résultat yi bu ñu bu ma signé résultat yi. dañ koy yóbbu euh, secrétariat général du gouvernement arrêté boo koy def ñu numéroté ko bu ñu ko numéroté ñu publier ko. mais xam nga yéen euh, procédure administrative. no non loolu moom ku xam administration. da jox nit ñi un délai boo. xam ne ci wóor na la ne doo leen ko génn. nee naa la ci semaine bi au plus tard jeudi normalement jeudi euh, résultat yi dinañ génn bu ma signé suba mu dem secretariat général du gouvernement. résultat yi mën nañ ko numéroter ci bis bi mën na génn donc mercredi ba jeudi mais du weesu loolu mais li ma bëgg a wax interpellation yi benn pour nga def pour nga dugg fonction publique euh, âge limitage dafa am limitage bi 35 cinquant la benn loolu mënoon naa ci préciser ci fànn boobu parfois même ñu joxe benn décalage un an dérogation un an bu fekkee am na concours am formation loolu mun naa ko ci dalal xelam un ci loolu. donc ah. pour concours crème limite d'âge du 30 ans mun nañu dem ba 35 ans. oui 35 ans mooy limite pour dugg fonction publique maintenant du loolu moo li ëmb solo mooy li ñu wax ci il faut ñu wax éducation nationale parce que sànq. wax mais mais balaa nga ñëw éducation nationale dañuy taxaw ci crème bi parce que toute la 75 pour cent des interpellations yi ma jot. sa concerne ce ce ce, ce concours là CREM 2022 bi accusé na un an de retard. CREM bi Euh, lancé ngeen euh, la procédure au mois d'octobre euh, normalement décembre waroon na fekk mu pare. est-ce que CREM 2023 bi tamit. lancé guñu CREM 2023 loolu. tamit dama koy. lancé gu leen CREM 2023 man joxe gu ma instruction ñu lancé CREM 2023 moo tax ma ne la da ngay bàyyi ñu xam nga problème at problème boo amee ñu wax ci dañ ciy génn xam nga fonction enseignant yi wax war nga budget bi nga xam ne moom le gouvernement. du Sénégal gouvernement Amadou Ba nga xam ak président Macky Sall euh, jagale en système éducatif bi mooy euh, éducation nationale enseignement technique professionnel ak ministère de l' enseignement supérieur euh, mën nañu wax ne c' est le quart du budget amul benn réew bu mu am tey bu ñu jëlee fii ci Sénégal jël ministère de l' éducation nationale ak enseignant yi am enseignement yi ñuy gérer c'est plus de cent quinze mille enseignants mooy ëpp na la moitié des fonctionnaires du Sénégal mooy boo jëlee jàngalekat yi nga dajalee ñi nekk ci système éducatif euh, sanitaire bi ñi nekk ci force de défense et de sécurité ñi nekk ci administration Sénégal yëpp enseignants yi ñoo leen ëpp cela veut dire que ëpp nañu de plus de cinquante pour cent loolu ay efforts yu am importance la yu nga xam ne dañ ci bàyyi xel Macky Sall euh, le président Macky Sall bi muy ñëw 2012 nombre d' enseignants yi amoon ci Sénégal 66 000 enseignants ñoo fi euh, nekkoon tey ñu ngi ci 115 000 loolu donc en termes de recrutement d' enseignants effort yi président Macky Sall def amul fenn fu ñu ko defee ci réew mi donc maintenant euh, man comprendre naa jàngale xale yi ñoom ñu bëgg am liggéey. ñu ci jàng bëgg a nekk jàngale muy métier bu noobu ma leen ci euh, ñaax leen ci jàppale mais il faut que ñu xam ne effort yi ñu def mu toll. maintenant mën nañ jàpp rek ci Covid bi force de euh, Covid am nañu recrutement spécial. non dinañ ñëw ci ci recrutement. mais dama may mën da ngay bàyyi ma posé ñu taxaw ci crème bi. oui euh, non crème bi crème bi liñ ci waroon wax. waaw dama lay expliquer. xam nga li ñu waxoon ci crème bi yëpp may may mën a li ñu ci waroon wax wax nañ ko ci nee naa la résultat yi nee nañu résultat yi dañuy kañ la ñuy génn ma ne résultat yi dañuy génn lu tax mu nga ne ma lu tax mu yàgg ma wan ma lay won lu tax décision yu ñu jël ko noonu. mais euh, une année quand même. non. Euh, ngeen tënk ay doomu Sénégal. pendant une année non tënkuñu tënkuñu. ñu toog di xaar déedéet. ils sont 1200. Euh, non non non ils sont au total non non parce que ndaw ñu toog di xaar. non ëpp nañu loolu sax mais mille cinq cent postes yi mooy poste yi ñu ubbi ne moom la ñuy moom la ñuy recruter mooy cent yi. te loolu dafa am fu mu sukkandikoo dañoo évaluer ñan ñoo retraite ñan ñoo dem retraite ak ñan ñoo euh, euh, décédé ci ci période boobu ñu ne ñu il faut ñu remplacer leen mais loolu il faut nga xam. Euh, décision bi ko jël parce que c'est une décision politique bu may assumer man di gouvernement du Sénégal di assumer ñun ñi mën koo comprendre parce que bu ñu nee dem nañu ba benn secteur donc ci éducation nationale bi ci secteur bi moom mooy jël lu ëpp ci éducation ci ñi fay jàngale loolu ñu defay effort yu mag te bul fàtte ne daaw ci année scolaire u daaw bi ci 2022 gouvernement du Sénégal dafa signé ay accord ak les enseignants ñi nga xam ne ñoo fi nekk mu yokk de façon circonstance de façon importante et très sensible le salaire yi muy une augmentation de plus de deux cent cinquante milliards bu ñu jëlee considère impact bi muy am entre deux mille euh, impact bi mu jël am suñu xoolee li am budget deux mille vingt quatre ak li am ci dem budget deux mille vingt deux deux cent cinquante milliards d' moom moo am loolu yëpp mu jëm ci salaire u yi loolu bu amee il faut que nit ñi xool parce que Sénégal tamit dafa am secteur yu bëri yu nga xam ne bis bu jot day ay day am ay besoin en emploi te foofu tamit ay sénégalais ay doomu sénégalais ñoo fay dem bëgg fa liggéey te réew mi dañ ko soxla ce qui fait que globalement bu ñuy wax état bi état bi politique de d'emploi bi mu am jeunesse mënuñu ko limiter simplement ci li am ci éducation nationale dañuy xool de façon très large li ñuy jël ci santé bi li ñuy jël ci les forces de défense et de sécurité te ak ñu xool évaluer lan mooy équilibre réew lan mooy équilibre réew xam nga man bu may faral sama secteur laay laay faral mais équilibre réew mooy que ne bànqaas yëpp ak fan yëpp dafa war a am ay nit ñi nga xam ne dañ fa war a liggéey lu mu mel tey su suñu waxee ne am na problème euh, personnel éducation nationale du ma ne déet mais damay ne par rapport ak effort yi ñu def ci gouvernement bi secteur boobu la gën a jagaleel effort yooyu. parce que non bu ma la waxee déglul ce ci fekk ñaari at yi ci ginnaaw gis nañu ne préoccupation ci gouvernement du Sénégal ci recrutement de personnel du ma ne éducation amul enjeu mais am na fenn fu nga xam ne priorité yi foofu la ñu ëppee parce que éducation dama lay ne en deux mille vingt et dañoo recruter d'un seul coup benn recrutement spécial la ñu wax ñu recruter cinq mille affecté leen donc mën nañu comprendre que beneen at ñu jëmale ko ci beneen secteur bu fekkee secteur yooyu tamit dañoo gis ne Sénégal soxla nañ fa ay nit ñi fay liggéey parce que ñëpp nag ay doomu sénégalais lañ ñu jël